ci bi ñu njëkk a teg ni way bi may wax Ablaye Wade dafa war a am euh, Karim Wade affaire alliance am ak Ablaye Wade de Sonko Ousmane Sonko dafa war a allié ak kii déglu bu baax ma wax par rapport à un contexte d'élection waxuma n'importe qui de waxuma Atepa waxuma Karim Wade laa wax mais fan laa ko génnee <laughs> mais koy vaar kay xanaa mooy ko mais journal officiel journal enquête journal bi tout de enquête ah ma leen di nuyu au passage ñoom ñëpp ah ñëpp ñoom ñoo laa defal interview bi moment boobu te moment boobu noonu dafa xatoon Ousmane Sonko génn na ci élection législative yi malgré coow yi coow yi am yëpp Ousmane Sonko dañ ko repêché dañ ko repêché ci dañ ko repêché ci amul député dañ ko repêché pour moom mu nekk député mun sax am benn député euh, euh, kii présidentielle yi ñëw yi know what man ce que j'ai compris mooy déglu leen bu baax li may wax non tey du ma yuuxu ah, comme démb gars yi profité naa lu tax muy énervé wu parce que non on va vous parler calmement pour wal leen ni booy euh, les détracteurs la c'est comme au journal télévisé je vous informe vous allez la fermer et vous allez écouter parce que je vous informe ok pour mu leer euh, man je sais que problème mu Sénégal c'est à deux niveaux nous avons des problèmes avec ñaari entité ñaari système la mooy l'impérialisme occidental mu tuddee ko le marionnettiste ak ñoom Macky Sall la marionnette déglu leen baax ñaar la le marionnettiste et la marionnette bu ñu jëlee Macky Sall te jëli woon fi le marionnettiste le problème reste entier j'avais fait exprès choisir Karim Wade parce que dafa am lu muy symboliser je l'ai toujours dit may leen Karim Wade ne sera jamais complexé devant l'homme blanc bi Ablaye Wade ñëwee ngeen gis rupture soog a am ñu commencé tourner wu vers les naar di jëlee xaalis ci naar yi di di ubbeeku ak Ablaye Wade au moins pour la première fois ñu sori l'impérialisme français ñoom ñu andi li ñuy andi bien kon ne s'échoue pas avec Ablaye Wade ak erreur def na yu bëri mais quand même mais ma français était pire que Wade moment boobu loolu mooy contexte bi Wade am na côté yoo xam dafa def lu baax mais son fils Karim dañ naan sàcc la mais nan la doon sàccee loolu mooy wax ji j'avais des amis des proches ki doon liggéey ma ne ma boy Karim ñëpp a ko wax il était rigoureux il était rigoureux ci liggéey bi ñoom dem leen ngeen laaj ku leen neex ku liggéey moom ay sénégalais la ñu dañoo bëgg suñu réew nañ dem laaji ku ñu neex dem leen ne Karim Wade na daan liggéeyee suba teel day ñëw exigeant gars yi loolu moo tax ñu am problème ak moom li lii lañ def ci VAR bi ah, parce que dañ ko dagg après dañu dindi contexte bi dama leen di expliquer pour ngeen comprendre ñin comme que ay caaxaankat la ñuy nanguwuñu liggéey ñoom ñëpp a eenoon Karim Ablaye Wade daf ñu commencé imposer doomam mani mais Ablaye Wade avait raison parce que la preuve bi fa Ablaye Wade jógee ñoom ñëpp a transhumé ma ni donc Wade avait raison de jox cinq portefeuilles ministériels à son fils il avait raison parce que xam na ni li mu bëgg réaliser doomam moo ko moo parce que Wade dafa bëgg siiw anyway dafa bëgg siw loolu moom ñu xam ko euh, il va être le le Cheikh Anta Diop bi affaire yi raa boobu foofu la bëgg nekk Ablaye Wade lu bëgg ñi di ko fàttaliku man boog lu ma comprendre ci moom mën naa mujj mais doomam dafa doon job quand même. mais man d'après sama xarit kan du wax turam kan laay wax ah jaajëf Mbaye Tall nuyu naa la bu baax waaye kan daf ma ni booy dama liggéey ak Karim li ma lay wax c'était en 2011 mais booy xam la lay def day am ay marché au moins day créer ay marché mais 5 pour cent moom day ñëw. gars yi nañ ñëw waaye jet privé bi nangam bu nekkee jet privé bi daf koy jël pour liggéey ok whatever mais malgré loolu yëpp man bi may wax. bi ma neewee ci ci journal officiel bi ma Sonko dafa war a am alliance ma xalaat kenn muy Karim Wade Mbaye Fall lay moom ma naan booy c'était li nga waaye li nga wax foofu booy xamoo sax ni nga ko xalaatee parce que effectivement loolu war am te Mbaye Fall lay dafa nekk ku ma respecté côté maay dafa yàgg si terrain bi au <laughs> ji la ko ma tax la après ñoom Ousmane Abdoulaye Baro bi nga xam ni ci bureau politique moom ci bureau politique Pastef la bokk ci Ousmane Sonko moom ci bureau ci biir bureau bi la nekk xam ñooñu réeroo wuñu boy di coow ni yëpp sànq on était démb ba léegi ñun dañuy waxtaan quoi man Tamsir Bathily bi nga xam ni moo géré massification Pastef mais mais bu kii bu France depuis le début xam nga rôle bi mu ciy joué di nuyu ñoom Ibrahima Traoré gars yi comprendre nga ah mais Ousmane Abdoulaye Baro ma diral depuis le début mais même chose mun nañu bañ a d'accord ci yenn affaire mais c'est la famille quoi ba tey ñun duñu réeroo ba dañuy waxtaan xam lu ñu tax a jóg ñuy fàttalante grand bul fàttali lii la may la non lii la affaire yooyu même chose la ñuy def ñëpp parce que lu ñu amal solo mooy Sénégal jour boobu bi affaire bi génnee enquête euh, Ousmane Abdoulaye Baro ne ma yii grand <laughs> sama gars yi ñoo ngi naan ay sa nee na nañu ànd ak Pastef de xaw ma euh, nañu ànd ak Karim Wade de gars yi ma ne ko Baro instant bi fi ñu toll nii maa ngi rappelé Babacar Sadikh gën naa ko dégg moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax bu nekkee moom ñuy dégg Babacar Sadikh benn ma ni boobu ma ni Sadikh parce que moom daf ko bind ci muram après man leen affaire bi fi ñu toll nii tey fi ñu toll nii tey euh, dafa xat ko nous n'avons pas le temps dafa xat parce que élection yi ñëw na ko mais benn mbir moo am bu fekkee ni xam nga Karim Wade du bokk ci élection yi mais ñaar ñoo fi taxaw buy ko ak kan ak euh, ak Idrissa Seck et je vous avais dit Idrissa Seck du nit ku baax ma yàgg ko xeex ñu ma ciy saaga comme nii rek yàgg ne gain bi du baax partisan amul lu ñaaw ñu ma waxul war nañ ñëw baalu ak ñoom tamit ok parce que lool dama ko jéng woon parce que loolu may dëgg bi mais bu yebama sànjaafu saaga yi mais yàlla dina ma jox raison te Allah jox na ma raison parce que dëgg rek moo wóor ma ni baro ma ni gars yi boo leen dof-dof la ah, partisan wu Karim yi ne gis ngeen ñu gaa yëpp di di dawee di dem ci Karim euh, ci ci amin ci Idriss Seck marfallaay <laughs> ah, ñëpp a ngi daw di dem ci Idriss Seck mooy politiciens yi boo leen deful attention électorat électorat ñoom Ablaye Wade beeg euh, euh, Karim Wade mais Idriss sek moo koy récupérer te Idriss Seck il est très mauvais c'est un danger pour le pays donc lu tax ma wax loolu c'est pour établir une barrière sympathique entre les partisans de Karim Wade et, et waa Pastef c'était ça le plan pour que Ousmane Sonko gars yi mu am mais c'est pas Ousmane Sonko qui nous intéressait dans ce contexte là ou bien Karim wadd xam la ma ñu intéressé woon électeurs yi sénégalais yi ànd ak Karim wadd ak sénégalais yi ànd ak euh, euh, euh, kii comment il s'appelle encore Ousmane Sonko parce que tamit moment boobu Sénégal la ñuy jiital donc c'était ça le contexte moment boobu noonu léegi gars yi bu ñuy vaar dañu jël dagg quoi xam nga ñun ay ci musique bi lañ nekkoon xam nañ luy editing sénégalais yi il faut ngeen yeewu tamit benn waay bu jëlee fa rek dafa la daggal le benn ki c'est quoi le contexte mais day changer contexte bi comme que moom sama ennemi la wala muy ennemi mais bu koy dagg da koy dagg nu mu ko arrangé day changé contexte gis ngeen ci arxuraan bi arxuraan bi am na benn kii bu ñu isolé mooy fi ñu wax yéefar yi moom la ñu utiliser naan foo leen fekk yéefar yi rey leen leen foo leen fekk yéefar yi assassiné leen mais ennemi l'islam yi aay boobu bu ñu ko isolé mais danga naan mais c'est ça c'est une religion violente su dëgg parce que boo ko génnee rek day génn contexte bi seen vaar yooyu dagg ñooñu dañoo am problème personnel ak man gars yi keroog fii gis ngeen fi Moustapha Sy bi mu fiy attaqué xalif bi dama génn ngeen defal taalibe Moustapha dinañ ma may dara mais duñ ma may dara du nag keroog te attaque euh, sëñ Modou Kara affaire kii nga defal taalibe sëñ Modou Kara fu ñu amee opportunité de descendre ba duñ ko def mais dañ ils vont me descendre Tamsir Bathily ah Tamsir bu la neexee nga dugg ak ah, ki laa di wax moom mooy moo géré massification Pastef bu France bu nekkee bëgg nga dugg ma dugal la nga leeralal gars yi yu am sax xam nga que you know ñun ñoo ngi job quoi waa 313 ñun dañuy job de manière globale ñun xooluñu xooluñu leader politique yi quoi xam lu ñuy xool peuple bi la ñuy xool. parce que ñii ay ñoom maajoor lii ñii dañoo jege Alasaan Alassane Sall ñii jege yu am sax euh, euh, euh, kii Ousmane Sonko ñii mais ci biir loolu ñun yu am sax peuple bi quoi peuple bi. mais tamit cette fois si nous some sommes dit une chose dañu tabax foundation bi ak réel yi ba pare soog a ubbi ok dañu tabax foundation bi parce que dañoo yàgg ñëw di am ay traite suñu biir ñu yàq suñu job donc dañuy xool fa le yi nekk mais booy ñëw leen ñu job ñu ci loolu lañ nekk anyway ok léegi nag benn affaire dafa am dama leen di wax lii ngeen lu baax ah bon waa Macky yi moom boo leen yaakaaree dama ñëw comme ni ma ko déclaré woon seen attention la parce que xam naa leen sénégalais yi bu ñu waxee xuloo bu amee yéen ñëppay ñëw you know say bu nekkee ne bu ñuy wax wax yu kii bay tuuti nga you know say you know what I mean right so euh, xeex bi am na fu mu toll instant bi ok am na fu mu toll euh, bu fekkee ni man Matar dama naan damay xeexal sama peuple ma dem ba ci biir ma commencé am problème ak sama peuple quoi di xeex ak sama peuple boobu mais benn instant bu peuple arrière man dinaa arrière ko garaawul parce que bu dul damay nekk en contradiction sama bopp te xam naa sama bopp du ma fiy tëmbal bomb yi du ko tay benn instant parce que booy il faut tout pour t'énerver au paroxysme quoi ok ce que j'essaie de dire mooy contradiction la ci man ma ni dam lay xeexal ba pare yow ignorant laa la jàppee yow moom di jéem a xeet tu es un ignorant xam nga tu es un ignorant comprendre ba bari bu ma ñëwee di la attaqué waat non mais parce que yenn boy yi kaale ma wax leen yenn boy yi keroog maa ngi leen ne leen boy moytu leen ñu yor tuuti weccet Sénégal dafa metti da ngay taxaw di saaga mën nañ teg un million ci taabal bi mën nañ teg you un million ci taabal bi booy damal escantel ma booy bële day am am na tem gars ne ma non yooy waroo ko wax en public non dama bëgg wax booy keneen mën na leen ko def quoi man duma leen ko def parce que contradiction lay nekk mais dama leen bëgg wax toog seen kër yi di saaga nit yi booy sonko yooyu parce que on en public ngeen am bàyyi leen seen yooyu bàyyi leen yooyu nit ñi dañoo bëgg seen yaay ak seen papa yi ok lépp waxtaan la mënuñu di d'accord tout le temps ci lépp c'est pas possible boo gisee benn affaire Matar def na benn affaire wala keneen ah at the end of the day la ñu am mooy Macky Sall man je l'ai toujours dit naa leen Macky Sall li ma ko mënul baal surtout ah, mooy lim ñu jaay français yi ko lim ñu jaay l'impérial mais français yi ma loolu mënu ma ko baal quoi man loolu mënul tax xam nga ak lu mu mënta def lu mu ta indi lu mu changer système c'est pas possible it's not gonna happen mais instant bi xam naa nag ñoo xaar ma descendre Sonko waree xam nga yu ko yu ko gaw bu bu leen bu leen xam nga beneen bi mooy man li ma bëggoon dama ko sentir tey quoi parce que ñu bëri woo nañ ma ne bàyyil noonu non bul détruire xaw ma la nangam nangam ma ne ah, ok kon gars yi au moins vaar nañ ma c'est bien <laughs> c'est une victoire quelque part xam nga beneen bi mooy xam nga mbay mbay samay dinaa ñëw ci loolu c'est vrai que y a des contradictions et des incohérences dans le comportement de Sonko loolu dinaa si ñëw mooy beneen bi mooy ñoom Sonko mais ñun peuple bi mais dañ ñoo war a ragal quoi mais gars yi bu fekkee ni ngeen di comporté woo ak ñoom Sonko sami naa wa atax naa Sonko dafa def ay erreur il faut ngeen nangu ko parce que ñi jege sonkoo dañ koy nangu ñoom dañu nangu ne ñi ko jege laa ñi ciy sonn waxuma la ñi toog seen gàll ci internet ñi ci sonn ñoom dañu nangu ne saawaay def na fii erreur saawaay def na fee erreur mën na am sax ñoom mën na am laa ñu dem ba jubu ba xuloo sax waree ba mën na am ah mais ils essayent d'être euh, d'être euh, euh, euh, kii euh, quoi d'être peut-être objectif parce que ay Tamsir <laughs> te mu ne ñu ok ay Tamsir et tout bo bu ñu waxtaanee that's the same right mais ñun en tant que peuple xanaa ñun waruñu toog ñu xool lan moo may fit Idrissa Seck ba buy toog léegi daan no dama ni façon naa yéene mais di reetaan quoi di reetaan mais lan moo xam la mooy problème mais lan moo leen may fit ñun ñu nekk ay millions ñoom ñoom ñu am fit boobu quoi xam nga lan moo dax parce que bi ñu leen di fal wala bi ñuy fal suñu kii ñun dañ leen di jàppee ay ba ñoom bu ñu demee ci kaw sax dañu naan ñoom ay intouchable lañu léegi amatuñu dara ñu ragal mais loolu bu ñu bëggee mu jeex mais Sonko wala keneen fu ñu defee erreur tey jii ñu ne ko saawaay kat lii ay contradiction la li waxante wu ñu woon lii moom dina expliquer peut mais bu ñu waxee gars yi ñëw commencé dal fii nangam na parce que at the end of the day lu ñu cooki cooki dañ koy jàppee ni c'est quelque part un lait sale bien que ay nit la ñu yenn saa dañ xaw a dóor yenn bomb yu sew yooyu pour wan leen booy ab yor nañu ay bomb de yenn saa yi ñoo koy def exprès pour wane ni bu ñu neexoon ñu yàq mais du ñu yàq dañ leen juste pour junju yor nañu ay ay lakri ok juste pour junju mais du foofu ennemi commun s'appelle Macky Sall ok. donc mais tamit mënuñu tamit en même temps mënuñu nangu li ñu daloon deux mille kii mais dalaat ñu mooy yéen a ngi fàttaliku démb 2012 bi ñuy xëy Ablaye Wade Macky Sall moo doon xam ngeen moom moo doon kan moom moo doon Ousmane Sonko 2012. avant 2012 Ablaye Wade moo doon Ousmane Sonko 2012 <laughs> wala moom Thierno Alassane wala keneen ñoom ñëpp ah? donc benn instant mais ñii tey di jiite tey di martyriser di vampiriser peuple bi ah ah di vampiriser peuple bi eh, Kamze nuy naa la ñooñu tey mais ils étaient de ils étaient de ñoo ñoo bokkoon la ñoo àndandoon di xeex tey ana Latif Coulibaly yéen a ngi fàttaliku Latif ana Alioune mais loolu ngeen bëgg mu amaat mais bu ñu bañee mo am il faut ñu ragal peuple bi te peuple bi il faut ñuy dur ak gars yi il faut ñuy dur avec les dirigeants loolu moo tax ñu taxawal 313 ok te 313 ñëpp a ci bokk ko yaa waa waa Pastef ci biir euh, comprendre nga wa yaa waa waa république des valeurs ci biir yaa nitu Thierno Alassane Sall yi ci biir mais kenn koo xam ne man da nga ni man yow yow kii nga àndal Macky Sall yow mën nga ko supporter mën nga ànd moom mais mënoo bokk 313 képp koo xam ni tamit mës jaar ci kaw sénégalais yi wala affaire yoo xam ne c'est privé whatever Iram Seye mënoo nekk leader ci 313. ma peut-être mën nga bokk nañ ubbi après mais yow loolu moo ñu tax a parce que nous sommes rendu compte d'une réalité mooy tant que peuple bi amu fi benn contre-pouvoir boo xam gars yi dañ ko ragal ah? il faut kii falu après mu gis ne doole moo ko fi teg gars yi xam nga da ngeen di bañ benn instant ñu laal Sonko raay et Euh, bu waxee Thierno Alassane Sall ngeen ni waa mais grand da ñu bëgg a imposer Thierno Alassane Sall même bu dee àndul rek Thierno Alassane Sall right ok parce que du ay affaire ànd ak kii wala kee ñun peuple bi lañu ñu àndal bu ñu gisee ku baax na comme Thierno Alassane mais dañuy naan mais gars bi kii ku baax la bee mais xalaat yomb na léegi bi leen ko waxee mais dem leen ngeen xool yi ndax dëgg la bu leen déglu kenn dem leen xool yi ndax dëgg la c'est easy qu'est-ce que xool waa ji parcours am mais du question imposé fu ñu gisee lu baax nag dañ koy indi ah. bu ñu gisoon beneen Moussa Ndiaye bu baax wallahi man maa fiy taxaw di ko promote parce que noonu laa def ak Sonko noonu laa def ak Ibrahima Fall ok Ibrahima Fall pa Ibrahima Fall noonu laa def ak moom te continuer mooy noonu laa def ak Sonko ba Thierno Alassane génn ma def noonu ak Thierno Alassane def noonu ak juge ñeent ñooñu laa mën a wax ñeent ñooñu laa mën a wax ñi ci des xaw ma ci ñoom dara du ma dugg ci yenn sax yenn affaire yi. ok maintenant bu fekkee ni Thierno Alassane Sall déglu leen bu baax li ma leen wax fi dafa am solo est-ce que yéen pare ngeen dama ne bu nekkee sax àndoog moom ah àndoog moom right yéen la euh, Macky Sall ngeen defa ne les affaires des quatre-vingt-quatorze milliards yi du génnaat <laughs> dossiers yooyu du génnaat ah Macky Sall bu fi yee woon mu arrêté Ousmane Sonko ñaata ci yéen ñooy jëng tegu si tali bi xeex-xeex bi comme ñun niñ ko daan defee suñuy jamono ñaata ci yéen ñaata parce que gis naa fi ay affaire yu doy waar am mais kenn du réagir réaction bi yëpp waaye libéré Karim non libéré Khalifa Sall libéré kii mais dara fa lay mujj shahid du dem fenn ñun loolu la ñu ñu Sénégal léegi noonu la policiers yi ñooy taxaw léegi ci mbedd bi def le neex ok mais bu ñu waxantee dëgg yéen bu nekkoon arrêté nañu Ousmane Sonko wala ñaanuñu ko yàlla yàlla na yéex yàlla jëlee woon ko fi ak li am li am ak euh, euh, euh, Idrissa Seck ñëpp naan càmbay à la veille des élections ñu arrêté Sonko qu'est-ce que vous allez faire mais au moins di ngeen soxla beneen nit bu baax bu bu beneen leader rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu génnee àdduna bi mu génnee àdduna saxaaba yi nekk fa di gérer kan moo koy remplacer quoi au lieu ñu dem ñu dem sang koor bi <laughs> sang ko toppatoo ko yooyu bu Sénégal xam ngeen dañ naan yii affaire nguur moom affaire dunia la xam nga mais saxaaba yi les meilleurs élèves de rasulullah xam na lañ dem gérer ji ba pare kan mooy remplacer rasulullah loolu moo doon priorité mooy tout le temps da nga war a am leader mais donc après da ngeen di ñëw andi benn jamaay fay wala ba may ñëw nekk li mais come on man come ah mais ay il faut généraux yi gérer dama ni même bu fekkee ànd li ma leen di wax mooy deux mille vingt trois vingt quatre ñëwagul le minimum que nous pouvon faire mooy def suñu enquête ku nekk na xool kan mooy kan mën na am sax am na beneen waay boo xam ne xamaguñ ko ah mën na am moo foofu ñun ñoo ko war a jëli ñun ñoo ko war a jëli ah am na koo xam ne xamaguñ ko donc bu buñ ñëwee léegi Sonko ngeen bokk ko def genre yàlla wala lan Sonko mais nit la boo xam ne day def ay erreur def na ci def na ci déjà yu bëri ah am na ay erreur yu mu def man bokk erreur la ay Moussa Diop yi ñëpp reconnaître nañ erreur la su dëgg ah nañu waxante raay beneen bi mooy gars yi seen vaar yi ñu ne euh, waaye ñu ngi jéem a kii ci affaire Sonko Atepa xam nga bu ma toogee sama benn grand bu jege Atepa ne moom li ko metti mooy Atepa day ñëw ñoom ñuy waxtaan mu ne mu ne waaw non comme day wax ci ñoom day jox Sonko ay ordre quoi non Sonko va le nan naan Sonko va le faire quoi mais loolu lay raconté ci ginnaaw te gars boobu mais sànq Karim Wade laa wax. contexte boobu par rapport ak Karim ab ak Ablaye Wade mais Atepa c'est autre chose day créer ay lobby et tout mais keroog moog Abi Ndour fii nangam nangam. pourquoi loolu yëpp mu parce que am na xaalis mais gars yi xam ngeen bu baax marché yi marché yi boo bokkul ci yenn groupe yi kenn du la jox marché yéen a ko gën a xam waay waaye xam ngeen ko waay. waykat yi waykat yi boo bokkul ci yenn société secrète yi doo fi am ay disque d'or dañu waxante dëgg. bu rek xam ma wax leen ko yenn yenn marché marché yu bëri yi il faut nga bokk ci lobby boobu noonu xam ngeen tur bi ñooñu seen xaalis ñu lañ soxla bés ak bapt ah léegi il faut que sénégalais yi au moins ñu yërëm suñu bopp jiital suñu bopp ko il faut que leader politique yi comme ni ma ko waxee sànq ragal ñu quoi te loolu ñun ñoo ko mën a cultiver ñu bàyyi affaire al toppe bi parce que da gis xoolal euh, dama leen di wax benn benn kii quoi gis nga euh, ah, Ousmane Abdoulaye Baro en public laay waxee ah dem leen ngeen laaj ko jamono bi Sonko di kii noonu commencé expliquer peut-être benn yoon la ñu wax bon j'avais possibilité kii relation yi maak moom you know même bi mu ñëwee États-Unis ak ah, boy dañu Sonko moo ngi la doon laajte parce que man maa bëggul woon dem ma te laa expliquer lu tax mais dama ni Baro man bëgguma wax ak Sonko quoi bëgguma am ak yéen parce que bu décoré damay problème pour créer ko donc yow bàyyil rek may wax ak yow dem leen ngeen laaj baro loolu laa ko wax depuis le début man may deal ak yow ko ma bañ a deal ak Sonko directement. bi mu ñëwee États-Unis pourquoi demuma li ma gëmoon mooy saa waay on est en deux mille vingt Pastef li ma waxoon baro commencement est-ce que am ngeen xaalis mais Pastef mais Sonko mais message am fii internet baa ngi fi lépp luy discours am mais ñi ñi xam nañ ko est-ce qu'il a besoin de ñëw États-Unis pour pour pour ñi ñëw jàppale votel ko mais son commune xam ngeen discours am donc lan naa gis jour boobu mooy sénégalais yi ñi sol seen costume di wanewu ah ñii di ay kii ñii di photo gis ngeen photo yi ah damay kii parce que moom mooy star bi <laughs> Daara dama damal jëli lool sa loolu yi nga nekk fii daal seetaan ah parce que Sonko mooy star bi moment boobu xaw ma sebaay si l'avait réalisé mais dafa am sax ay rappeurs yu bëri yoo xam ne ay musiciens fii ay kii yu bëri ñoo xam ay nit public yoo xam mais boo nekkee Sonko mais Sonko ku nekk ak moom moment yooyu star ngay nekk parce que daf lay yóbbaale ci ci ci kiyam ci ci succès wam tey jii am na ñoo xam ñëw di saaga di jàppale Sonko mais non Sonko sama gayen la non nuyente naag Sonko mais who cares problème bi mooy lan la Sonko nar a def ci town bi est-ce que Sonko bu dekkoonee di ko wax dëgg est-ce que ñeme nga affronter nitu Sonko yi comme ñun ñu koy defee mu nekk ay millions de nit ñun niñ koy defee ñu ne on s'en fout dëgg bi la ñuy wax est-ce que ñeme nga ko def foofu la question bi nekk gars yi ay nit lañu Macky Sall nit la gars yi da ngay ñëw yenn saay ñuy saaga Macky Sall Macky Sall ñëw seen kër pourtant ku baax la de gars yi pourtant ku baax la de automatiquement ñu changé mais peuple bi bu nekkee ñun noonu la ñuy fonctionner mais kañ lañ ciy génn bu nekkee ñun dañu nekk ay complexe parce que nit ki dafa am xaalis parce que nit ki moom la ñuy wane si télé bi parce que ñun dañ ko dund benn instant dañ ko siwoon dañoo siwoon trop xam nañ fans yi ni la daan fonctionné benn fan fans ñëw ba naan daf lay may ay sëram quoi sëram <laughs> benn ñëw naan daf lay may sëram te xam ne temps yi ay bandi yaagal ni ñu nekkewoon ci dëkk bi benn instant ay affaire jeune quoi laa bëgg wax ah donc complexe boobu noonu nekk ci subconscient yi ah bu ñuy wan politicien bu ñuy wan ñu am xaalis yi mais tant que demul mais du ñu dem moo tax Macky Sall benn instant day ñëw xool ki gën a nekk star ci benn dëkk benn village wala benn koñ ki nga xam ne ñëpp moo fay star bi mu jox alal jurul jeex kooku su kooku ñëw nax ñeneen ñi après ñu votel Macky Sall moo tax il faut complexe boobu jeex ñu xam ni ñoom ils son à notre service ñun ñu wax Sonko demuñu wax kenn ñëwal nga nekk suñu njiit ñoom ñoo porté wu volontaire mais responsabilité boobu pouvoir boobu dafa ànd ak ay responsabilité n'est-ce pas et comme ni ko may samay waxee dans un même parti il peut y avoir des courants différents autrement c'est le de la pensée unique il a raison comme ñii ne may samay xoolal il dit que Sonko <laughs> gis ngeen li mu xalaat ci Sonko bokk na ci ñi njëkk a jàppale Sonko may samay bi par rapport ci rajoom et tout ok mais ñun ñëpp bokk ay maajoor li fël ci suuf ah ñëpp waa 313 la Tamsir Tamsir Bathily bu Pastef fël ñoom Ousmane Abdoulaye Baro et tout ce qui veut dire ñun au moins xam nañ la mooy contexte yi nous essayons de faire la part des choses lu nekk ñu teg ko ci place am lu teg ñu teg ko par rapport ak timing timing am lu nekk par rapport ak location bi ak timing bi ñu bañ a jaxase mélanger parce que mën nañu ànd même bu ñu d'accord ci yenn affaire peuple bi nag bu ñu mënul fonctionner noonu fu ñu jëm pour revenir daal gars yi def seen vaar yi booy bu leen bëggee siw ngeen dem ngeen liggéeyi quoi ngeen joobi benn affaire ngeen siw ngeen bay internet bi parce que problème bi mooy vingt quatre heures sur vingt quatre ci internet bi mais saa nga dem joobi mais defaroo dara sa réew bul xaar Sonko wala keneen defaral la ay Thierno Alassane Sall defaral la sa réew demal nga liggéey ok mais bu ko def Facebook grand place bu ko langaamu ci ñoom Matar Matar pour siw bàyyi leen seen yooyu ñun comprendre nañ yenn boy yi nga xam ni ñoom bi may abattre Y'en a marre booy gis naa leen booy ab seen yu <laughs> li ma def Y'en a marre moo leen metti ba léegi mënatuñu mënatuñu mobiliser c'est clair mënatuñu mobiliser kan la ñuy woo muy leen waaw ah, ba fi nekk di dénoncer gars def di ma attaqué fan la mujj ah ñoom ñooy nekk di jéem a venger wu tey ah di leen yóbbaale bu leen yóbbaale seen yooyu ñooñu il cherche qu'à exister ñun ñooy real soldiers yi nga xam ni au moins ñoo ngi jéem a def lu concret loo xam nit mën na ci teg loxo te ñoo ngi jéem nag laa wax ok il faut que les mentalités changent comme ni ko Pape Malick yu mu waxee meen moytu riirandoo yi bàyyi leen ñooñu dañ leen di soxla rek xam nga te comme li wax lii nag du ma si ñëwaat ah du ma si ñëwaat booy def le lu leen neex loolu beeg nuyu naa la def leen neex booy ñun du ñu ak yéen quoi <laughs> vous essayez d'exister du ñu ak yéen te doo leen tax tamit ma ma def ba loo xam ne ça va faire plaisir au euh, à Macky damay menacer yenn saa yi menacer pour mu tàng mais je vais pas faire des choses yoo xam ni day tax Macky Sall abattre Sonko non du ma ko def du ma ko def loo xam ni gars yi boo ko waxee non damay junju te ça c'est dans le cadre des erreurs xam nga ci ay erreur la donc loolu la c'est toi te quatre jotagul na gars yi agissé mais sama souhait sama souhait lii la ñett yi ma Thierno Alassane Sall Ousmane Sonko ak juge Deme ñetti yooyu ñu ànd. man loolu mooy loolu laay mooy sama souhait ñetti yooyu ok maa leen di wax Thierno Alassane Sall mais dama lay xooli mooy kan d'abord xam nga comme nga xam ngeen Sonko ba pare mais dama lay xooli mais les pourris la am na si ay pourris yu bëri yoo xam ni mais on n'en a pas besoin xam nga am na ñoo xam langaamu lañ fi nekkee seen jot na yooyu seen jot na yooyu gars yi nay amin yilaf seen whatever ok seen ay CRD ay jot na yooyu yëpp mooy loolu benn instant am na pas ñëpp quoi mais am na si ñoo xam ni langaamu la rek la ngaa mu la boo bëggee kii da ngay dem nga liggéeyi boo liggéeyee ba nga taxaw boo taxawee après gars yi nga ñëw <laughs> ñu respecté la ah, ak barte ak barte parce que par rapport li muy wane instant yi mais Bart tamit euh, dawres bi par rapport ak dossier Moussa Diop bi dafa tapet yooyu soit waxul dëgg wala dafa tapet dañu wax dëgg te moom nee may mooy El Pistolero right so so foofu la problème bi nekk quoi xam nga donc euh, gis nga may samay dafa wax fii lu am solo mu ne on n'est pas dictateur on le devient à force qu'on di dit que tu le plus beau la meilleur donc yéen benn instant même sa leader boo bàyyiwul di ko kii benn instant moom ci bopp dina bew def loo xam ni du baax encore une fois li may terminer mooy Macky Sall mooy l'ennemi commun xam nga di invité gars yi bu ñu mënee join 313 bi gars yëpp nga fa réel yëpp nga fa ñoom Maysa Mbaye ñoom Major Ly bu République des valeurs ñoom Tamsir Bathily Ousmane Abdoulaye Baro bu Pastef ñoom Meus xam nga ñoom Lës Diwane ji euh, ok ñoom Aada Kanibal bal yeneen gars yi you know ñëpp a ngi ci biir yaa ñoom euh, sama ñoom professeur ñoom Gabriel Sidibé you know professeur waaw Kulim Dioum ñoom ñoom Feno Saint-Louis euh, fële Casamance ñoom you know saying waa Kédougou xam nga Udi Diallo Iram Seck ñëpp a ngi fi amin ñun ñoo ngi job ci suuf ñoo ngi job xam nga gars yi génne mooni bi ñuy job parce que dañ ne pour nous par nous xam nga duñu bu ñu génnewul mooni parce que gars yi ah, xaalis dafa dafa dafa sax ci xol mais da ngay gis ku gën reculer ñoom maa bari xam nga nga xam ne boobu peut-être ay suñuy doom la ñu et tout même ñoom dañuy jël sen benn dix seen benn mille francs def ci xam nga soo so loolu daal mooy mooy kii quoi donc yi doom sa ku bëgg intégré three one three bi mun nga call bu nekkee Pastef nga nekk mun nga contacter Tafsir Bathily wala wala wala wala kii pourquoi 313 bi am solo mooy dafa am moment boo xam ni xam nga ay parti politique yi dañu tënku dañu am ay règle ak yooyu mais il faut mu am loo xam ne mbedd bi la mbedd bi la yaanaamaar moo war a def jon bi job bi ñu trahir Sénégal yi mais ñun ñoo defar yaanaamaar parce que ñun ñoom ñëpp ñoo leen inspiré ci rab bi wan leen quelque part nu ñuy bindee texte loolu moom dafa leer ok directement ou indirectement ñoo leen jàngal nu ñuy engagé ni ñuy bindee texte texte rap bu engagé right de par rapport ñu doon def de l'art pour l'art quand je dis loolu xam ngeen ñan la ñi ñi daan représenter hardcore bi ok so loolu you know ku bëgg a join na nga join eh, that's what xam nga il faut ñu xeex ñu xeex xeex bi ñun ñoo ko mën a représenter waa mbedd bi parce que Macky Sall bu bëggee forcer troisième mandat bi il faut que la rue soit présente il faut que la rue taxaw du ay parti politique ñooy taxaw no c'est la rue mais la rue buy taxaw tamit le leadership ñiy diriger la rue ça doit pas être le chefs de parti comme ça ñu woon chef de parti ne booy doole bi lañ fi jëlee Macky Sall boo leen dof dofloo yéen nekk président ngeen kii lii moo leen ciy fekk nous sommes le peuple ñun nous sommes dañoo strong te ñu ñooy peuple bi dañoo am doole ok boo leen déconné Ousmane Sonko Thierno Alassane ku mënta nekk juge dem ku ci nekk président gis ngeen suñu doole ñun ñoo fi jëlee kii te loolu dix millions Macky Sall mënul résister dix millions de Sénégalais c'est pas possible that is the point right there ok donc euh, encore une fois you know léegi comme ni ma wax gars yi li lay terminer bu fekkee ni ñun bu ñu indee ay kii dafay mujjee ba euh, dafay mujjee ay problème man ak sama peuple la ah. mais <laughs> léegi léegi garaawul gars yi wax baax da amul problème l'essentiel ñun nous allons nu concentrer ci job bi quoi nu allons nous concentrer ci trois centres yëpp yoo xam ne nag dina indi division ah. léegi dañu bàyyi mu jàll garaawul xam nga mais nag nañu assumer quoi nañu assumer ok nañu assumer quoi xam nga waa république des valeurs a ngi fi waa Pastef fa ngi fi ñoom Thiel kii ñoo ngi fi Europe sa liggéey benn la xam nga et fàttali wax aussi surtout ay parti ya ah, ay parti bu mel ni ay Pastef benn instant dafay am ay opportuniste yu bees yu dugg foo dem moom daf fay am mun naa fekkoon nii dina fa am foo mënta dem ñooñu tamit na ngeen def attention ci ñoom parce que bu ñu bu ñu duggee Euh, amuñu lu ñu bëgg ñoom ñooy mujjee taxaw di yàq de di saaga ay ndey di saaga leader bi loolu tamit bàyyi leen xel ci ñooñu tamit ils sont dangereux